jëre ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ger di amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen di nuyu sunu kilifa diine yi sunu kilifa day di ñaan naat réew di Sénégal ñaanal sunu borom doole jàmm di ñaanal kilifa diine yi kilifa day euh, tey nag ñu seet si kilifa goo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi rawatina ci kër gi di people 221. fas yéene si xëy moom waxtaan ku ne gis na fan yii coow li bari na candidature Ousmane Sonko bi ñi naan dina bokk ñi naan du bokk ah, ñu jëm aussi tamit. investi candidat bu yeewi askan bi su ma jumul la quinze la Thiès Amadou Bari mu jur coow lu bari patriote yi fi mu toll nii ñëpp a ngi wàcc waaye ñu bari aussi ñu ngi am sikki sàkka ni dina bokk wala du bokk fas yéene jël Cheikh waxtaan Serigne Kamal sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyoog ñu lay suivre. waaleykum salaam wa rahmatullah waaw kay ñu ngi leen di delloo ab nuyoo di nuyu mbooleem ku ñuy bàyyi xel góor ak jigéen mag ak ndaw foo mën a nekk. di ñaan sun borom sun kàddu fekk la ci jàmm. di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di ñaanal ñi ne ci lali hôpital yi sun borom yëkkati leen. di ñaanal ñi caabi féete ginnaaw sun borom taxawu leen gindi leen génne leen. di ñaanal itam ñi dëddu adduna sun borom yërëm leen. te yàlla def ñoom ñëpp fañ ne gënal leen fii ñu jóge mhm. di la wax bisimilah. am na solo sëñ bi. Mhm. ñu jëm benn. investir ma candidature. mu di bu mhm. Ousmane Sonko. Mhm. mu jur coow lu bari. Euh, naka nga jàngatee waaw mbirum Ousmane Sonko moom même bu dul woon candidature sax mënut a ñàkk coow ndax suñ borom a def muy ko fës damaa yàgg wax ci samay wax ni moom yàlla daf koo teral teral gi nag du ci moom yàlla ndax Ousmane Sonko aw turam daa dajeeg turu ab zahiru te mooy lu fës loo xam ni kenn mënu koo suul moom lépp lum dugg rek faw coow am ca. nit la koo xam ni itam euh, fexeel ko lu jafe la euh, toroxal ko itam lu jafe la sonal ko itam ku ko def faaw nga sonn kenn mënu koo sonal dem jàmm moo tax damay wax ni rek ay mbiram moom buñ bëggee jàmm nañ ko teg ci suuf rek te yemale ñëpp ñëpp bokk jàmm am ndax àdduna fii mu toll euh, daanaka réew mi ñëpp daan nañ ñu ñee ci jàmm jàmm jooju nag dafa am solo ñu bàyyi ko xel xam ni li koy delloo si dafa bokk ci mbirum usmaan Sonko mii. Mhm. loolu yàllaa ko dogal du moom du keneen mbirum suñ borom la. yàlla léeg-léeg mu jël jënn jëmm def ci loo xam ni ku ko laal réew mépp yëg ko bu bëggee ñëpp bëgg bu bu nekkee ci naqar nit ñi yëg ko ci seen yaram yëg ko ci seen i xol ba bu ñuy wax muy feeñ ci seeni làmmiñ loolu mbirum suñ borom la waaye du Ousmane Sonko Ousmane sonkoo mënalul boppam dara kon nag li may wax mooy nañ fexe coow li jeex ñëpp am jàmm. ndax mbiram moom jàmmal ko dafa am solo ndax day tax réew mi amuk dal waaw day tax ñëpp ne ci jàmm. Mhm. d'accord ci candidature am boobu noonu ndax am nga yaakaar ne dina bokk wala du bokk. waaw mbirum candidat mbirum candidature am boobu nag euh, li ma ciy wax rek mooy li ma la wax sànq ni la ay mbiram dafa bokk ci moom jàmmam day jàmmi réew mi te gis nga moom mu bokk day jàmmi réew mi. Hmm. te day jàmmi ñëpp itam ñun ñëpp fi ne Euh, fitna moom dafa mat di wattandiku ndax hmm. wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa alxuraan dafa wax ni fitna wattandiku leen ko ndax bu yeewoo ku ci yoonam ne ak ku ci yoonam niwut ku ne mën nga cee eh, jot jot sa wàll hmm. moo tax daal li may ñaan kilifa yi nga xam ni ñoo ko sañ a def mooy nañ ko bàyyi mu bokk ndax bu bokkee ñëpp bokk am jàmm euh, ku yàlla dogal nga jël réew mi ñu xam ni loolu la yàlla dogal hmm. ndax nguur moom euh, nit ñi war ñoo xam ni ci loxol suñu borom la ne alquran moo ko wax qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzihul mulka mimman tasha wa tuhizzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal xayru innaka ala kulli shay'in qadir ci loxol yàlla ku ko soob jox ko ku ko soob mhm. waaw nañ def sabab yi rek ku ne ku war a dem dem waaye kenn ku ci ne yàlla bind na ki ko war a doon ba pare waaw loolu jërul coowoo jërul xuloo mhm. d'accord am na solo ma ñëw ci wàllu ñaan mhm. wàllu ñaan buñ ko waxee fi may njëkkee mu di seet seet ku ne xam na ni mooy buntu ñaan ci yan anam ngay faral di seetee waaw laaj nga lu am solo seet mooy listixaar mooy tànn loo suñu borom subhanahu wa taala istixaar nag ki ko sàkkoo def mooy ki sàkku istixbaar mooy ki sàkku ku ko xibaar euh, xibaar ay mbiram xibaar ko ak ak ak mu nekk ci lim ne ak lim dëgmal ndax euh, képp ku xamut ci sa mujj dara xamoo ci li nga nekk dara da tëñëx tëñëxi rek. Hmm. te doomu aadama buy tëñëx tëñëxi mën ngaa daanu euh, ci kàmb goo xam ni da koy rëccu. te it boo nit ki bu dul listixaarlu di tànnaloo ay mbiram di sàkku xibaar ci ay mbiram mën naa dugg ci loo xam ni daf koy rëccu te du ko xam te bu ca duggee ba noppi lay door a xam ni lii kat metti na ci moom te xay na bu ci sàkk woon xibaar du du du demee noonu. Mm-hmm. te itam mu doon loo xam ni itam euh, képp koo xam ni euh, fonkoo ko rek mbir mu ñëw bett la ku ko fonk itam di ko def dara du la bett te lu te luy ñëw bay waaj a ñëw da ci am solution. Mm-hmm. ndax amul lenn lu amul solution waaye am na ay solution yu jaarul yoon. Mm-hmm. moo tax euh, listixaar dafa am solo moo tax yonent bi ni. Euh, kuy loo suñu borom doo juum kon nag ki ko fonk ak ki ko fonkut moom ci adduna mhm. duñ yem te duñ masa yem mhm. ndax euh, listixaar dafa bokk ci ñaan yàlla nit ki bala mu ko mën a def mu listixaar mbir yi doomu aadama bi ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo waxoon ni euh, ahjasun naas man ajisa ani duhaa yi ki gën a doye di ci li yàlla bind mooy ki gën a doye dal ñaan te ñaan dafa bokk ci listixaar mhm. ndax nit ku ne bu bëggee nga ñaanal ko faaw nga xool ay mbiram faaw nga xool tabiaam faaw nga xool biddiwam ba xam naar yu wala tuwaarib yu la wala hawa yu la wala maa yu la loolu dalay dimbali nga mën a gindi nit ki génne ko ci njàqare lim ne dugal ko ci buntu mbégte ndax euh, lépp lu mën di doon rek nit ki li fekk génnewoo ko ci buntum njàqare rek mënoo ko dugal ci euh, buntu mbégte mhm. te bëri na ñoo xam ni loolu lépp li leen yóbbee njàqare yi àdduna mooy ñàkk listixaaru ndax xam nga listixaar boo ko du def lu bëri dalay bett te lu la bett man la te itam adduna da ngay gis koo xam ne lu dul jeex ci àdduna yor na ko mhm. te jëriñoowu ko. Mhm. te dem naa dama dem ba xam ni alalam ja la muy bari bari jëriñoowu ca dara. Mhm. te loolu bari na ñu muy ñoo xam ne lu ne yoroon nañ ko te tey jëriñoowuñ ko. dëgg la fekk alal du dara nit ki mu ëpp solo alal. Euh, li tax ma la alal du dara mooy yonent bi sallam dafa waxoon ne hassinu anfusakum ñoŋal leen seen bopp mooy aar leen seen bopp. daat ni ahjasu naasu man ahjasa ani duaa yi ki gën a doy di ci li yàlla bind mooy ki gën a doy dal ñaan. Mhm. kon a xam boppam xam euh, ko mooy muy fexe di aar boppam fexe di wutal boppam muslaay fexe ba lépp lu mu dëgmal mu sotti fexe lépp lu mu yor mu jariñoo ko waaye li gën a yées ci àdduna mooy yor loo xam ne liggéey ko sonn ci bay bëgg dee te jëriñoo woo ko te bëri na ñum dal ci àdduna moo tax euh, loolu dafa am solo listixaar dafa am solo buñ ci doon wax duñ fi jóg Euh, moo tax nañ ko tënk foofu rek incha allah ba beneen yoon. d' accord am na solo sëñ bi ma yor ma ñëw ci wàllu wàllu nopp. nopp mm-hmm. doon secret boo xamante ne nii. Mm-hmm. damay wax ni bëri na façon waaye biñ ci yor. Mm-hmm. musuma ko gis. te it soog du ko jug nga noobal ko. waaw loolu dëgg la du ko jug ñu noobal ko ndax mbirum nopp euh, dafa doon loo xam ni du du du xam-xamu gone. te itam dafa doon xam-xam boo xam ni dafa am solo ci jamono ndax bëri na ñoo xam ni. Euh, dañoo bëggante lool xëy na euh, yu bëree bëri di ca xew ba takkante mënu caa am gis ñoo xam ni wax dëgg yàlla koo xam ni day nekk ak soxnaam sax da ba ci biir te ñoo tax sax daanaka ñu ñu gën cee ñu ñu ñu ciy gën a liggéey. ñi nga xam dañuy nekk ak seen soxna te duñ duñ ci am bànneex. nekk ak seen soxna te du leen déggal. nekk ak seen i soxna te duñ jóg ci histoire. loolu yëpp ñu ngi ci biir ñooñ sax lañ ci gën a yittewoo wala koo xam ni day jëflanteek eh, benn eh, soxna boo xam ni dañoo dem a dem ba mbëg koo takk ay jafe-jafe am ca bu ko defee bu ñëwee dañ koy dimbali ndax ñun nopp liñ ci yor li ma ne du yëfi gone kuñ ko jëflanteel kuñ ci jëflanteel nga xam ko mm. ndax doon na loo xam ni du jéggi 24 heures te li ñuy def buñ ko defee damay wax ni bu ma ko defoon ci jur gu góor ak jigéen sax duñ mën a taxali ko waxuma laa góor ak jigéen te yor ay xel dafa am loo xam ni eh, xam-xam la rek xam-xam moom daanaka dafa am solo te noob dafa doon loo xam ne ñun dañ ci am moy suñu borom euh, képp koo xam ne am nga problème sa digganteeg sa soxna wala sa digganteeg koo bëgg a takk euh, damay wax ni la la la la problème booba euh, la la la la tee mu dox digganteeg deñ mooy daa fekk agsi woo ci samay loxo. Mm-hmm. waaye nag damay wax ni man agsi ci man dimbalul suñu borom la. ndax euh, suñ borom léegi itam jaam bi bu nammee mu dim bu ko nammee dimbali rek dana ko yóbbu ci fu mu fu mu dimbali ko waaw waaye fii moom képp ku fi ñëw yaakaar naa li des ak dund bu dee euh, sa soxna sula la soo soo xam ne déggalu la 24 heures du ko mag du ko mat te boo ko toogloo woon ciw naaj mu yendu fa mhm. waaw dama koy waxtu ne ni man li may jox dama koy jox nit moo xam góor moo xam jigéen kenn ku ci ne euh, boo ko defalee sa borom kër bu la neexee toogloo ko caw naaj ba ba koy jógiloo foofu du fa jóg hmm. ndax gis nga cofeel dafa am solo fépp fu mu ne te muy dëgg yëg-yëg dootu fa am ndax mbëggeel mu ëpp doole lépp hmm. daanaka nit ki bu la xësee bëgg boo ko toogloo woon ciw naaj sax dafay toog te da lay déggal itam euh, léeg-léeg nga gis koo xam ne jabaram déggalu ko fekk da koo bëggul rek hmm. waaw ku la ku la ku la bëgg da la déggal te loo bëgg bëgga mel ni moom moo tax loolu moom yaakaar naa nopp liñ ci yor du jéggi 24 heures te kuñ ko defal ci àdduna dootoo am lu lay metti ci sa digganteeg euh, sa soxna wala sa digganteeg koo bëgg takk léegi nag ku dul ñaar ñii nag duñ la ko defal duñ ko def ngir bëggante di fon yi déedéet ndax nit ki suñ borom afaxasibtumu annama xalaqnaakum abathan andiwuñu ci àdduna ngir ñu fo mm-hmm. te lépp loo defal nit itam ba mooy ca yàlla bàkkaar ba da ngeen koy toggoo bokk ko. Mhm. te doomu aadama bu ne war na di wattandiku bàkkaar di ko wattandikul mbokkum julli tamitam mhm. am na solo. Mhm. Euh, ma ñëw ci association Cerce Marie ñoo ma yóbbee question bi. jigéen ñi nga xam ne dañoo tëw am jëkkër. vraiment sonal nañ ñi dëkk bi nag. waaw wax dëgg yàlla li nga laaj am na solo lool mooy xale jigéen yi nga xam ni mënuñoo am borom kër. yooyu nag yi koy yi koy waral dafa bari moo tax am na ñoo xam ni dañ leen a dëj. am na ñoo xam ni mbirum rab la am na ñoo xam ne xëy na Euh, ñoom ci seen bopp ñoo am jafe-jafe yu bari yoo xam ni ay def-def la ba mënuñoo am borom kër waaye loolu lépp mënoo cee xam benn te seetooko waaye boo ci seet ba xam ko rek ngir saafara ga day daal di yomb lool te doon benn jafe-jafe. Mm-hmm. Euh, ndax euh, ndax ñett yooyu yi ma la limal bu mu ci mën a doon ñun li ñuy jox nit ki buñ ko joxoon meerub juróom-ñett fukki at day daal di am jëkkër te du jéggi ñeen fukki guddi. ndax yaakaar naa yàgg nañ ko jox sax ay nit ñoo xam ne ay magi jëm lañ. niñ koy joxee mag ñi noonu lañ koy joxee xale yi. waaye kuñ ko jox moom li des ak yaakaar naa mbirum jëkkër dootoo ko jàmbat leneen ngay wax waaw waaw loolu wax dëgg yàlla am na waaye kuñ ko jox moom yaakaar naa dootoo jàmbat mbirum jëkkër mhm. Mhm. d'accord am na solo ba tey damay des ci wàllum sëy boobu sëñ bi sëy yëngatu na mhm. coow li bari na ku dem boo demee trois mois quatre mois nga tas yàlla sunu borom dénk la ci secret boo xamante ni bari na ci tey sëy yoo xam ne wax dëgg yàlla bu defaroo sa jëmm ji moo tax loolu dëgg la waaye gis nga yaaram ab sëy des koy dëgëral bu bu su ko dëgëralul rek du dëgër te moo tax euh, buñ delloo ci alquran Haarut ak Maarut ñoom biñ ñëwee wa maa yuallimaani a ahadin hattaa yaquulaa innamaa nahnu fitna falaa takfur fa yata'allamuuna minhumaa maa yufarriquuna bihi bayna mari wa zawji ñoom dañoo ñëwoon xamal nit ñaari way dencante. Haarut ak Maarut xam-xam boobu ba léegi nag mi ngi ci àdduna di dox ndax xamal nañ ko ay nit nit ay nit nit xamalewaat ko muy kenn ku ci ne eh, kenn ko xamal di te xam-xam boobu nit ñaa koy istiqdaam nit ñaa moo tax sëy bu amut kaaraange mën naa a kenn ku ci ne nag toog di di naqarlu sa morom ca tas ga nga tas ku góor ki bëgg ku jigéen ki ñëwaat ku jigéen ki bëgg ku góor ki delluwaat te fekk kenn du ci mën a delluwaat sa morom ndax te doo xam sax lu ko waral li ko waral nag mooy gis nga xam-xam képp ku ko képp ku ko doyadal mooy li ma la sax képp ku ko doyadal yaay ki gën a doyadi ndax dafa bokk ci dunduk doomu aadama dafa bokk ci liy mën a dimbali doomu aadama bi dafa bokk ci li nga xam ni saa bu doomu aadama bi nekkee ci njàqare rek ñaan génn ko ca xanaa xamoo doomu aadama saa bu tiitee rek ñaan suñ borom waaye nit ki wërta bàyyi ba jaaxle rek di ñaan yàlla waxtu wu ne da nga war di xool sa bopp dëgmal sa borom dem ci ko xam mu mën daa dimbali fi mu ne listixaar képp ku ko mën war nga di ko defal sa bopp mhm. képp ku ko mënut nga dem ci ku ko xam mu di la ko defal ndax dana la dimbali dana la suturaal suturaal sa njaboot mhm. te adduna boo suturaalul sa bopp rek gàcce dab la mhm. gàcce goo xam ni li des ak dund mën naa metti te dootoo ko xam te nit ki itam yaay dimbali sa bopp sun borom bu la dimbalee yaay dimbali sa bopp ndax euh, euh, lii ñun lii ñuy def nii ngir di ci di di ci génn di yaatal xam-xam bi ngir ñëpp mën di ci jariñu dañuy dellu ci alxuraan lim ni waa maamayin faw naas fam kus fil ardi ki ëppal doomu aadama yi njariñ mooy kii gën a sax ci kaw suuf mm-hmm. te euh, sax ci kaw suuf doo ak dund kese waaye dimbali doomu aadama yi la ndax ñi ñi ñi dëddu àdduna ku ku loo leen laaj lu ñu gën a bëgg mooy dellu si ci àdduna donte seeni saa la ñu jëf ci ci ci lu baax yóbbaale ko mm-hmm. te jëf lu baax dara gënu cee rëy jëfal doomu aadama yi moo tax alxuraan ni in tansurullah yansurkum suñu borom nee na bu ngeen ma dimbalee ma dimbali leen mhm. te ku ne xam na ne yàlla aajowul ndimbalul kenn te lépp aajowoo jëm fa moom waxin la woo xam ne bëgg ñun ci suñu ñuy dimbalante la te gis nga nit muy dimbali boppam waaw ndax ñun li ñuy ñaan lépp génnut alquran maa faratna fi kitab min shay'in mhm. la mhm. te wa nunazzilu min alqurani maa huwa shifaa'un wa rahma suñu borom daf ko wàcc ngir muy saafara lépp alquran day saafara xol di saafara njàqari nit zahiran wa batinan loolu yàllaa ko def moo tax euh, moo tax euh, alxuraan ni in yansurkumullahu fala ghaliba lakum waaw neen bu leen ndeem ndeem suñu borom dimbali na leen kenn du leen mën a not te ndimbalul yàlla mi ngi ci biir alxuraan mhm. waaye wa in yaxsulkum bu leen yàlla bàyyee fa man dal ladi yansurukum ana kan moo leen di dimbali amut moo tax euh, loolu dafa am solo ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax mm-hmm, mm-hmm. am na solo mu ngi noonu ba nga agsi fii mm-hmm. sëñ bi ma ñëw ci galaaju ndaw ñi galaaju ndaw ñi mu di kaaraange kaaraange ndaw ñu soxla ko te jamono ji ndaw ñeeg mag ñëpp a ko soxla te mu jafe leen nga di yor ci secret waaw wax nga lu am solo muy kaaraange kaaraange ñun dañ cee yor loo xam ni ndomba boo xam ni kuñ ko xës jox yaakaar naa kaaraange moom lii de sëg dund dootoo ko jàmbat. Mhm. ma mu doon ndomba boo xam ni loolu sax mm, borom kër yi la gën a yitteel sax xanaa ci ni ndaw ñi. Mhm. ndax dafa doon ndomba boo xam ni ki ko takk. suñu borom da koy sàmm sàmm njabootam sàmm alalam sàmmi doomam mhm. wa hufisa wa ahlihi wa maalihi wa waladihi te rutiqal hayba e, wa rutiqal hayba fi qulubil jababira suñu borom da koy def wegeel ci xolub doomu aadama yi ñu bëgg ko sopp ko ndax kaaraange dafa doon amoo dara ci àdduna hmm. loo mën a yor ci àdduna te amoo kaaraange amoo dara ndax loo mën a yor ci àdduna te amoo kaaraange ñàkk ko weesugut hmm. te boo ko ñàkkee dana metti am ba pare ñàkk lu gën a métti loolu amut doomu aadama war na di ko fexe di sóoraale lu ak seegut di dimbali boppam ni ma ko te itam euh, mu doon loo xam ne ndomba bi képp ku ko takk suñu borom dalay sàmm sàmm sa njaboot sam sa alal sàmm say doom mhm. fi mu ne waajur yu ko takk sax bu ko neexee ay doom mën na a takk doon loo xam ne lu am solo la rawatina fii jamono toll ndax léeg-léeg nga gis koo xam ni déegu déegu ñàkk solo lay dee mhm. déegu doye di sax dëgg la ku faatu yàllaa la rey ndax xalaqal mawta wal xayaat mhm. yàlla dee la njëkk a bind ci ni dund waaye nit daf mën naa aar boppam ba suñu borom di ko suturaal du dee ci àll du dee deegu ñaaw suñ borom mën na koo suturaal nit itam nga def loo xam ni ah, mën naa dund fan yu gudd loolu lépp mën na am li amut kay mooy nit moom faaw dana dee ndax dee sun suñu borom ñëkk bind ci ni dund mhm. waaye kaaraange am na goo xam ni man naa musal nit ba du dee ci dee gu ñaaw mhm. mën naa musal nit itam ba mu gudd fan lool loolu lépp xam-xam la yoo xam ni mag ñi banañ ko fi euh, borom xam-xam yëpp banañ ko fi muy lu am njariñ loo xam ni dara taxut lu pour nit ñi rek di ko jariñoo mhm. waaw waaye kaaraange la goo xam ni ndomb boobu moom ku ko takk wax dëgg yàlla doy na sëkk li ma wax sànq ni loolu yonent bi saa salaam ñun dañoo dimbali ci lu bari lépp loo xam ni gën na ci ñun rek wax nañu ko di ko bàyyi xel ndax moo tax mu ni nañ aar suñu bopp euh, moytu itam ñuy doy dal mbirum ñaan nga xam ni moo ñu mën a dimbali dem ba àgg ci ni suñ ngànnaay ñun jullit ñi mooy ñaan mm-hmm. Mm-hmm. d' accord am na solo sëñ bi ma ñëw nag ci wàllu papier. Mhm. wàllu papier tey nga ci liggéey anam yoo xam ni. Mhm. damay wax ni mosuma koo gis parce que ñu bari nag bu ñu nee papier yaakaar nañ ni módu la. Mhm. am na ñu ko soxla waaye tamit. sa wàllu papier. dafa yóbbaale ñi nga xamante dañu xëccoo. yóbbaale ñi nga xam ne dañu nangu seen i ba ci kii déposé ci wàllu liggéey. waaw wax am solo ñi nga xam ni dañuy nangu seen i terrain ñuy xëccoo dara ci te ñu ci bëree bëri xëy na doyadi doyadi doyadi doyadi poos sonal leen mooy yoruñ lu bëree bëri luñ mën a luñ mën a saafara seen i seen i seen i yitte jooju mhm. ndax uh, nit booy jëflanteeg moom bu la ëppee doole ci àdduna rek pour nga mën ko mën naa jafe waaye xam-xam mën na laa dimbali foofu. Uh, muy muy bor sax ba ci bor sax képp koo xam ne yoreel nga ko nit boo ñëwee fii dama lay dimbali nga nga fay ko te loolu dama ciy dimbali doom aadama yëpp. ak ak ku mu mën a doon waaw. nit moom boo ko yorelee bor ni fayoo ko daa fekk ak seegut fi man mhm. ak koo mën a doon nag doonalu ministère doonal leneen loo mën doon rek boo ñëwee di nga ko fay ndax nit suñ borom daa farut ak kuy tooñ hmm. te ak zulmu zulmaatun yawmal qiyaam suñ borom farut ak kuy tooñ te kuy tooñ ku ne doo am mujj gu rafet waaw te mujj gu rafet ku ne war na koo soxla mhm. li ëpp solo mooy gis nga loolu dama ciy sawar mooy nit koo xam dañ la ëpp doole nungu sa terrain wala ñu ëpp la doole yor sa alal bañ la koo fay loolu buñ buñ ñëwee fii. Mhm. la may jëflanteeg yow ci baatin bu soobee suñu borom li des ak dund kooku moom moo lay tuubal di la jéggulu te lu mu la yore loon dana la ko fay baa du am jàmm. Mhm. loolu moom képp ko yoreel nit ñi fayoo ko daa te te bu agsee fii ci man di xam ni waxoo dëgg da nga ko fay. Mhm. ndax loolu du ma ko seetaan tey du ma ko nungu waaye bu dee mbirum papier ci loo xam ni da koy soxla ci eh, gouvernement a ndax euh, bala ñu bala ñu cee mën a dimbali nit ki rek faaw ñu seet ko ndax bari na ñoo xam ni problème bi ñu am ba seen ajo yi mënut a fajo dafa am gàllankoor yu ne ci ñoom gàllankoor yooyu nag boo ko dindiwut ngir nga ñaanal leen dana xaw a jafe ngir nga dimbali leen dana xaw a jafe ndax lenn lu ne dafa am aw yoon mhm. ndax wa aatul buyuuta min abwaabihaa mbir mu mën di doon rek da koy jaar ci buntam mhm. waaye jàpp naa ni man moom duma waxee sama bakkan te lépp lu wax yàllaa tax suñ borom képp kum nam mu sa aajo fajo dana la man ndax mboolem ku ku ma mas a ñaanal ci adduna rek saajo faju ne te amatoo looy jàmbat ci àdduna. Mhm. Mhm. xam naa ci dara mu ngi noonu ah, ah xam naa nag sëñ bi. Mhm. nee nañ li duuf ci nag bi xajul ci cin bi. te waxtu wi daanaka xaw nañoo jekk. te ku ne xam na ne it da ngaa xat. waaye nag damay wax ni jamono moom bu tollee fii. faaw nga seeti ñi nga xamante ne bu ñu waxee ndaw ñu déglu leen. Ah, moo tax ñu ñëwoon taataan la suñu micro. am na mbégte ci jàkkaarloog yow. wallaay ñoo gën a bég lool. am lool gën a wax dëgg yàlla. di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bi alihi wa sahbihi wa xadimihi amin mhm. mu ngi noonu numéro téléphone baa ngi noonu ci euh, écran bi mu di Serigne Kamal boo ko woowee rek incha allahu rabbi lépp loo xam ne sa aajo la rek ci réew mi ci bitim réew bu soobee sunu borom yàlla dina la fa jàmm ak salaam bëgg ñëw fii musaafaraw jërë ngeen jëf